asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 10 septembre 2020 ñoo wax yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di suñu lamb nag moom tey Balla Gaye numéro 2 la xëyee ci xëtam wu njëkk Balla nag moom yëglikaay bi ne na ñaari mbir a ngi yoo xam ne daal ñoom ñooy taas ci kaw maanaam ay taas noir la yoo xam ne daal ñoo ko taq ci li nga xam ne moo di biir carrière am ña ko ko yóbbee nag du ñenn ñu dul ki nga xam ne moo di Eumeu Sène mi mu bëreel mu xam ne nii moom moo di Balla Gaye numéro 2 kañ ko booleeloon nag muy Gris Bordeaux mu war a bëre ak moom Gris nag moom comme fan yii daa génn ne du bëre ak ñaari adversaire yëglikaay ba xëy sampub laaj ne Gris Bordeaux lan lay xalaat wala boog lu muy ragal ba tax mu génn wax wax ju mel ni ki noonu leneen loo xam ne nii wala ñeneen ñoo xam ne génn nañ di wax ci mbirum CNG bi ak ña ko war a jiite muy Amadou Mbaye ma jiite amateur authentique yi moom daal wax na ne kii nga xam ne mooy ñëw moom ab liggéeykat la boo xam ne ni la war a doon jàmbaar fa ki tëdd daal la jàpp ne moo fi a français mbër mooma wax na ca jàpp na ne daal kii ñëw moom na nekk koo xam ne jàmbaar pire liggéeykat pire la war a doon jàpp na ne koo xam ne itam war nay waxtaan bu baax a baax a baax ak ña mu jiite ndax jàpp na ne problème yi daan am bokk na ci li ko gënoon di indi ñàkk di waxtaan te waxtaan nag des fois mu indi ay solution wala mu defar loo xam ne mënoon naa jagadi wala mu yàqu loolu mooy gis-gisu Mouhamed Ali leneen loo xam ne nii wala beneen combat boo xam ne ñu ngi koy wax ci biir yëglikaay bi di sunu lamb muy diggante Modou Anta ak bu Thiès ak jën kayre mel ni ki nag ñëw nañ ci ñoom ñaar seenu combat boo xam ne daal daa mel ni fi mu nekk nii daal mu ngi ci làmmiñu nit ñi ñu koy wax yëglikaay ba nag yemu ca ñëw na ci ñoom ñaar seen palmarès ak lañ jot a def bu dee Diène Kaïré la neuf victoire la am trois benn match si nil Modou Anta moom dix-sept la am ak quatre défaites moo tax yëglikaay bi xëy tey ñëw ci ñaar ñooñu leneen loo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci muy école de lutte Jimbori école de nag moom la ñu def maanaam daal ñetti victoire la ñu am ñaari défaites moo tax yëglikaay bi jàpp ne daal seen i doxin daal daa mel ni kii doxinu kàkkatar la ka nga xam ne nag moo di chef de file ba moom di bébé Saloum moom ay mbiram boo bëggee dëgg-dëgg fi mu nekk nii ci takku suuf la def am na feneen xale yoo xam ne itam ñu nga fa daal di wane seen bopp ku mel ni musique moom saa su ne daal mu ngay gëm di wan boppam nit ña ka nga xam ne nii la ñu maanaam daal combat amuñu ko marle di cote nag ñëw na di li nga xam ne daal moom moo nekk ca école ba ak na nga xam ne ni noonu lay doxee loolu la ñu yëg likaay bi di suñu làmb xëy tey andil ñu ko fa nga xam ne mooy ca jimbóor yi leneen loo xam ne nii moom wala muy record Abdou Guèye la xëy tey seqal waxtaan Abdou Guèye nag mooy magi Moustapha Guèye di entraîneur écurie Fass maanaam ñëw na ci Gris Bordeaux daal ak coow yaag jàppal bàyyi yaag écurie Fass nee na Gris moom fi mu nekk nii daal boo bëggee dégg-dégg daal erreur yi muy def xaw naa takku lool bëri na yëglikaay ba moo xëy ñëw dalal ko mbirum Tigre de Fass ba tamit joxe na ca xalaatam waaye Mbaye Guèye daal daa mel ni ki daal mooy kañ ca jàpp ba tey rek Abdou Guèye daal tey ñëw na ci lu baree bari mu wax ci ak ñàkk a bërëg forsa ak la nga xam ne nii moo ko ko teree def ñëw na andi ci ay leeral moom Abdou Guèye Serigne Ndiaye deux tamit wax na ca moom ak ni nga xam ne nii noonu la war a taxawee fi mu nekk nii ci ay combat ba mu ngi ko ñaanal sax combat bii mu jëm mu mën koo gañe waaye itam daal seen écrit ba ak na nga xam ne noonu la ñuy doxee ak la nga xam ne ñu ngi koy am ci ay mbër yoo xam ne dañuy bëri ay grand combat mel liggéey tey soo bëggee dégg dëgg moom moo ngar daa joo record wax fa loo xam ne ni daal lu yaatoo yaatu la yëglikaay ba ñëw na wax nu ko bu nu delloo suñu làmb moom ca tuus ya combat ba nga xam ne moo di nees ak forsa ñu ngi koy réclamer nit ñaa ngi koy laaj waaye góor a soog ak forsa tamit daa mel ni daal boobu combat moom ñu ngi daal ci di ko dox maanaam di ko lijjanti keneen koo xam ne nii moom boo bëggee dégg dëgg mu ngay préparé digganteem ak armée bu baax a baax mooy fëgala bu lamsaar yëglikaay ba xëy na ñëw wan ñu ko mel ni ki daal fëgala moom mu ngay préparé a xam ne nii moom yëglikaay bi ñëw na ci moom moom fi mu nekk nii daal ci tranquillité am la ne maanaam xel mu dalam maanaam toog jàppale sam kenn dérangé wu ko dérangé wul kenn yëglikaay ba xëy wax na ko muy Balla Gaye numéro 2 ak dëkkuwaayam bu bees ba nga xam ne mooy ca maris ga nga xam ne fa la toxu ju léegi yëglikaay am ne na daal Balla fi mu nekk nii daal ca maris moom mu nga jàpp tranquillité am toog jàpp boppam mel ni kon daal fa mu toxu ji daa mel ni kon neex na ci moom sunu làmb xëy ñëw wax nu lu mel ni ki noonu salaamaaleykum mbokki suivi Leewtoo TV ñu leen nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal comme ni ñu koy defee chaque jour rek dañuy ànd ak yéen ci li nga xam ne moo gën a fës euh, ci yéen kaay ci wàllu lamb Babacar euh, defal leen revue de presse bi ma daal di ñëw ak moom ci jàngat bi Babacar nuyu naa la. maa ngi lay fay Aïssatou Faye. Babacar euh, tey dañuy ñëw ci suñu lamb andi li gën a fës tey li ñu suñu lamb andil muy Balla Gaye 2 ak carrière nee na nag li ñu jàpp ni moo si tache noire gàq-gàq bi mooy ñaari defet yi mu am ci kaw Eumeu Sène ak euh, daan bi ko euh, Bombardier daan nangu couronne bi ci moom waaw loolu moom ndaxar naa ne moog sport ànd moog làmb ànd defe naa ne euh, ñëw ci làmb daan ñëpp te kenn daan loolu dafa xaw a jafe mhm. yaakaar naa nag te itam ñooñu ko daan muy Eumeu Sène muy Bombardier ku ci ne yaa ko jiitu ci làmb ay magam nañ ci làmb mhm. defe naa buñ ko daanee ci ñoom boo leen xoolee seen parcours fi ñu jaar defe war nañ ko mën a daan ci làmb yaa ngi dégg parce que làmb moom moo tëddee noonu mais nag euh, comme li ñuy wax rek euh, parcours bi moom mënu rek maanaam dama koy def ba mu jeex te kenn du ma daan loolu c'est mm-hmm. impossible faaw nga am ci ay fakkatal te et àddina moo tëddee noonu ah des fois xam nga di dox ba mu yàgg sax nga fakkas sa lu xaw a daanu yooyu jubbanti ko waat dox loolu moo ci nekk quoi mais c'est normal ak ñooñu ko daan parce que Balla moom yaakaar naa ne euh, daan ko ci làmb ku ko daan xam ne daan nga mbër waada mm-hmm. waaye ku mu daane xam ne mbër waada moo la daan mm-hmm. waaw waaw euh, ba tey dañuy des euh, ci Balla Gaye adversaire am muy Gris Bordeaux Gris Bordeaux nag fan yi coowalem diggante ma Gaston mi ngi woy ba léegi Gris sax nee na du bëre ak ñaari adversaire loolu xalaatu ko Babacar waaw bëre ak ñaari adversaire <laughs> doy na waar lu am solo daal mooy coow li bëri na te la ma si doon wax du ma ko dépassé maanaam euh, nañu fexe jàmm am seen diggante ñu juboo jéem a déggoo parce que lool moo fi nekk waaye moom itam bu fekkente ne dafa gis ni tey moom Gris taxaw comme li mu wax ne du bëre que jàpp na ne loolu war ta a dalum xelam lay def comme moom loolu dalutam xelam dalam xelam mooy mu bañir bëreetil Gaston bi bëreeli keneen ah bu kenn mënu ko caa dindi parce que magum yàlla am jëmm la waaye li am solo daal mooy li ma ci dégg ci ay coow depuis ba bët ay combat bi jàppal bàyyil dama jàpp ne ca début ba Aïssa dafa am mhm. lu nuyoo ci ngoro maanaam lu feeñ sëy dañ ko fayul nan la fa demee nag parce que Gris Bordeaux la plupart ci ay combat am daawuñ ci dégg coow lu mel nii parce que xëy na li ko waral staff am ñoo ko daan négocier ba mbir yi kii ñoom ñooy jël lu mu doon ñoom mais xëy na bii xëy na yàlla def na ah, suñu dégg wax yi daa mel ni loolu la demee wala est-ce que du moo ci indi coow li ci am ba tey mu yegsi fi mu yegsi. jur problème bi yëpp voilà. waaw ah, dañuy ñaan yàlla comme ni nga koy waxee. mu réglé wu Cheikh ñu combat bi am ak jàmm ak salaam. ñu jógee foofu ci ñaari mbër yooyu dem euh, fële ca CNG. ci ñu war a ki nga xam ne moo war a utu Alioune Sarr euh, Amadou Mbaye ñëw na ak euh, père Mouhamed Ali ñoom nag joxe nañ ci seen kàddu Babacar. waaw ñoom li ñu gis mooy koo xam ne daal kuy jege nit ñi lay doon koo xam ne liggéeykat lay doon kuy déglu loolu la Amadou Mbaye wax jiite les amateurs authentiques Mohamed Al Dimanasirou Lac de Guiers dana écrit waalo mu mel ni kon loolu ñu wax defe naa ñëpp moom la wax maanaam kiy jiite ëllëg na nekk koo xam ne nii ku attan li ñu koy jox lay doon ku jege nit ñi lay doon kuy déglu lay doon parce que ay sax lu la mën laay wax njiit bu mu mën a doon ak loo mën a jiite secteur bu mu mën a doon nga yore ko yilif ay nit di xam seen ay Euh, problème di ci mën di saafara mm-hmm. et puis di waxtaan ak ñoom ñoom itam ñu lay dolli ay xel mm-hmm. parce que jiite tekkiwul ne da nga ëpp xam-xam mm-hmm. di nga jiite nit ba pare moo ëpp la xam-xam mais yow la yàlla dogal ci yow li ñu wóolu la jox la ko kon la ca am solo nag mooy déglu bi da ciy baax seen seen nag ñu ngi ñaan yàlla équipe bi fii ñëw xaw ma kañ lay doon ak naka demee yàlla na nekk équipe bi nga xam ne daal mooy gën ci waa amin Babacar ba tey ci coowlu coowalu CNG bi Chérif Fall nekk tam ci CNG bi moom nag génn na wax na ñi nga xam ne ñooy ñaañi euh, CNG bi équipe bu Alioune Sarr ak yooyu wax na ñoom nag nee na moom seen doxalin si boobam la comprendre ndax démarche bi moom cohérentul rassurantul waaw loolu daal Aïssa li ma ci mën a wax mooy moom euh, Chérif Atkhana ñu koy nuyu di ko ziar mm-hmm. euh, àddina moom maanaam nit ki mënoo jiite ay nit wala nga yore dara te doo am ay critique

am na ñoo xam ne tamit ànd nañu ak Alioune Sarr ci na muy doxale mais àddina nit ki mënuloo am ñëpp ne li nga def gongo ñëpp ànd ak yow non loolu ah. yàlla bu ko neexoon def ko ci àddina ñëpp topp ko mm-hmm. waaye mooy loolu mooy loolu voilà <laughs> waaw waaw kay dañuy jógee foofu dem am combat boo xam ne suñu lamb andil nañu ko ne nit ñi nag bëgg nañ ko muy Diène Kaïré ak Modou Anta waaw muy combat boo xam ne ñu ngi koy dégg boobu ba ñu di ko wax Diène Modou Anta mais am na promoteur yu ko bëgg promoteur yi ko bëgg nag te di ko dox ñu leen di ñaanal yàlla yàlla nañ ko réussir parce que combat bu a ñaari mbër la ñoo xam ne yaakaar naa tey ci làmb ku ci ne marqué nga sa empreinte jéen xale la yàggul ci làmb waaye itam defe naa ne tey ah mu ngi bay waaram bu baax a baax a baax mm-hmm. te loolu am na solo trop ci mbir boo xam da ci dugg bëgg ci def carrière mu du anta kon li mu jiitew jéen ci làmb daa ni wane na ko ci palmarès parce que euh, ay 17 victoires su ma jumale ak yu jëm na ci ay 4 euh, combat yoo ñàkk defe naa mu lay wane kon mu du anta mbër yàlla na yàlla def mu réussir jooju làmb Babacar ñu jógee foofu ci combat boobu dem euh, ci école de lutte euh, Djimbory mhm. nag euh, ñoom combat saison bi ñu jógee cinq combats lañ ci am trois victoires ak deux défaites loolu day bëriwul boo bëggee dégg dëgg parce que combat yi bëriwul te tuut mu tolloo ak défaites yi maanaam li ñu ci défaite ak victoire tuut mu mhm. tolloo Djimbory nag mooy écrit bi nga xam ne moom la bébé jiite ñu nuyu seen coach su marale mu mel ni kon la indiwaat lu gën a leer loolu xay na saison prochaine dinañ jéem a seen toogaay ba gën a mën a am résultat yu gën positif yi ñu am nii waaw Babacar ñu jógee sunu lamb dem euh, fële ci record Abou Ndour amal fa waxtaan bu yaatu ak euh, Abdou Gueye di frère Tafa Gueye ak Mbaye Gueye di coach tamit euh, écurie ba moom nag ñëw na ci waxtaan bu yaatu ci ñoom Serigne Ndiaye ñoom Forza ak mais liñ ci gën a fës mooy nee na Gris dafa commettre erreur yu bëree bëri waaw erreur ci àddina de dama naan mënta ñàkk parce que nit a mel mel noonu njuumte daal ay sa du ñàkk waaye li ñuy bañ mooy nga dëkk ci rek boobu moom bu yàggee dañ la doo nit ku dul juumit dañ ne doo nit Abdou nag moom mooy magu Tafa Guèye actuel entraîneur écurie Fass moom Abdou Guèye ah, defe naa bu waxee si ñoom war na si mën a parce ko leen mm-hmm. ah, mm-hmm. di dox ay erreur ñu gis ko ci yow nañ la woo wax ak yow nga jéem bàyyi erreur yi mm-hmm. nit ki tamit yow mi def ay erreur boo juumee ci àddina parce nit day juum na nga reconnaître yow da juum pour nga mën a tegaat ci yoon wi dem waaye njuumte nag sëgg ca nag ne doo sigi loolu moo dul wóor <laughs> yaa dégg ah. kantaan ak ñoom Forza ñooñu ak ñoom Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye moom defe naa espoir la boo xam ne tey ci phase wala sax ci làmb te ñu bëri ñu ngi koy bàyyi xel loolu nag li ko waral mooy liggéey mais nag lu ci mën a am mooy mbër mu ndaw boo toll ci di war a jóg wala nit ci àddina sax dangay ngay ànd ak humilité rek wàcc sa bopp rek mhm. nit ay satu saa yoo dee ànd ak humilité bu soobee yàlla yaakaar naa ne ah yàlla mën na lu yóbbu fu sore sore sori Forza itam ñu ngi koy ñaanal comme ni ñu ñaanal mbir yëpp mu am combat parce que li tax mooy ñu ngi wax ay combat man du ma gis sax ne dañ ko ragal de man gisuma lool man non non gisuma ko parce que li tax mooy nit ñi wutuñu yoon déedéet mbër yaa ngi bëri ak moom xëy na problème mu adversaire la ak problème mu promoteur problème ñi mu bëgg ak ñi ko bëgg waaw loolu waaw loolu parce que xam nga na rëg rëg te rëg rëg boobu nanguwul bëri

Clédor duñ ko nommé lu raw la parce que moom moo sañ ci écrit bi mhm. ci li ñu xam ñun bi ci des mooy écrit ba defe naa ba tey mu ngi existé ay at yu baree baree bari la ñu ne déet ne waaye liñ ko nominé Tigre de Fass bés boobu dégg naa ci ñun luñ fekkewul la waaye luñ ñu nettali bés bu metti la woon ci moom ci làmb ndax mhm. combat bu mu doon bëri la ñu dóor ko ci ay dóor yu métte métte métte ba kanam yëpp yàqu bañ na combat bi dañ koy aj dootu ko bëre mbay bëree ba daan benn sourance dekenaa bu nekkoon RTS moo ko nominé jour boobu le tigre de parce que dafa wane jikkooy jàmbaar mhm. loolu moo lay wan ne nag nit ki lépp looy nekk ci àddina rek ay sa jéem jaawoon ak njàmbaar mhm. ak njàmbaar nag duy tooñ déedéet njàmbaar ak tooñ ak sañi wax loolu du njàmbaar déedéet njàmbaar mooy la ngay def nga di ko def di ko teg ci aw yoon te yàlla tax foo te wane ci a doon ci lépp looy def rek nga boole ci fulla ak fayda ak jom daal waaw Babacar ci loolu la de l'arène di leen ñaanal jàmm fu nu munti nekk leen ñaanal la xéewal ak sutura bu bëree ba di ñaanal yàlla tamit euh, corona bi jóge feeg jàmm ba ñu delluwaat suñu activité normalement mais nuyu tamit eh, sama borom kër bu baax nuyu samay goro nuyu samay njëkke nuyu sama yaay bu baax a baax di leen ñaanal ñoom ñëpp gudd fan ak wér sax amin Aïssa amin yàlla na yàlla nangu ñaan yi ci corona bi yàlla na dem loolu nga ñaan tamit si diggante sa borom kër yàlla na ko yàlla nangu seen njaboot gën a yokk gën a barkeel comme li ma la waxoon rek laa lay waxaat xam nga te di ko wax ñëpp di ko wax sama bopp sëy moom mer benn lenn si nekk rek pour man ku góor ki ki takk soxna na ko yërëm xam ne jigéen matul di ko jàppale di ko dimbali te yàlla tax mm. jigéen ñi tamit na xam ne dafa am kilifa kilifaam muy borom këram mm. mu déggal ko ñu ànd jaamu yàlla xam nga bu ko defee yàlla may leen njaboot gu barkeel yàlla na ko yàlla defal bépp doomu aadama bépp góor bu yor soxna ak bépp jigéen waaw laa man daal yàlla nañu la ñuy bañ <laughs> leen ñaanal jàmm mais di nuyu suma xarit Youssou Ndoye bi nga xam ne signé na contrat bu bees ci Séville ca Espagne di club bu basket ba ñu koy ñaanal yàlla xam nga yàlla na fa réussir loolu nga xam ne moom la fa am comme contrat mën ko matale ci condition yu gën ci moom di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu képp koo xam ne yaa ñuy suivre xam nga di ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm di masaw ñu ci mbënd mi ñu leen di masaw bu baax a baax yàlla yàlla na a farlu a takkalu ne yu balaa yi wax bi yooyu fajul affaire gis nga mbir boo ko bëggee faj da ngay dem waaw non da ngay jëf jëf a takku mhm. Cheikh Ibra Fall dégg naa doon na wax ne mu ngi bàyyi ba fa muy fekke ji yàlla fay ay wax bàyyi jëf mhm. ay satu jëf du dara mhm. jëf bokkut bokkut ak dara boog yal nañu yàlla xiir ci ñuy jëf te jëf jay doon lu baax quoi mais takk say weer rek toog ci plateau télé yi jax jàppal bàyyi après ba kañ nit ñi di am ay problème loolu c'est grave amin amin